donc ñu ngi ak professeur Daouda Ndiaye teew tey jii nii ci cérémonie lancement campagne de vaccination bi alors euh, professeur d'abord sa impression ci bile jotaay gi nga xamante ne tey la ñuy door lii jëm ci wàllu ñàkk euh, waa réew mi ci mbas mi nga xamante ne bi mu fi duggeek léegi li mu fi gàllankoor bëri na ci askan wi. waaw soo sant yàlla rek am fierté ñëw fi tey bokk ci ñi ñi nga xam ne ñoo njëkk a jël vaccin bi. Euh, pour joxe le bon exemple parce que xam nga ñun dañu ne est-ce que ñun wax nañu est-ce que lan mooy suñu position ci vaccination bi est-ce que askan wi euh, nangu nañ wala nanguñu euh, ma jàpp ne bu fekkente ne ñun ñooy scientifique yi nga xam ne ciy wax boobu ba léegi mu ñëw balaa kenn di ñun ñoo war a jël pour wan nañu ne bu fekkee am na ci ñuy testé ñu lañ ko war a testé ba pare moo tax tey ñu ñëw fii pour jël wan askan wi ne jël nañu. que ñu leen di woo ñoom aussi ñu dem def vaccination bi te xam ne loolu mooy njëriñu askan bi et surtout accompagner le président par rapport à l'initiative boo xam ne sant yàlla fierté parce que comme coow lu bëri woon na dina ñëw du ñëw euh, bu yàlla defee président indi ko ñun scientifique yi ñu waxtaan ci ba xam ne loolu lañu war def buñ ko indee nañ ci sant yàlla. effet vaccin ci tawat ndax ñu bëri dañuy jàpp ne bu nu vacciné woo dina tax dootuñ feebar wala dañuy mucc feebar lan ngay leeralal ci bopp askan wi ci li ni mel. vaccin ñaari ñaari yëf la la mën a def. bu njëkk bi mooy dalay aar d'abord pour nga bañ a euh, loru ci feebar bi bu fekkee ne euh, war na mën bu fekkee yow da nga nekk personne vulnérable beneen bi day bokk ci nga arrêté transmission bi mooy te yow dina bokk ñoo xam ne du jaarat ci yow pour dem ci feneen donc soit mën na permettre yow mii ko war a jot doo ko jot pour joxale malade bi même fekkee ne du la faat après wala même fekkee ne tu es person personne vulnérable bu la waree bés bis bu la jotee du la faat donc prévention la boo xam ne vaccin bi day tax ñu doomu jàngoro bi du màgg sa yaram ba indi la problème du fa dugg donc euh, mooy li nga xam ne daal mooy mooy mooy mooy li vaccin bi dina maintenant il faut dire que mesure barrière du changer parce que mesure barrière yi complément d' la indi ci loolu ba nga xam ne ëllëg euh, ñaari force bu ñu boolee day nekk force supplément day nekk bu ëpp doole donc mesure barrière plus vaccination day gën a may doole euh, doomu aadama initiative COVAX lañ annoncé woon ñu ñëw gis ay dose de vaccin Sinopharm docteur euh, professeur naka la mbir yi demee noonu. boobu ministère defe naa waxtaan nañ ci ñoom ba pare donc aujourd'hui je pense que dégg naa chef de l'État li mu wax ci rajo bi tey ci RFI ak yeneen chaînes yi que vaccin bépp nga xam ne yaakaar nañ ne baax na. dañoo rawante daal laa bëgg rawante ci ma dire ci gaaw ni mu waxee nga xam ne relation diplomatique la. Mhm. parce que ñëpp a ngi étudier apparemment ñoom ñëpp ku nekk yaa ngi wane ne baax na te y a pas d'unique y a amul mhm. donc bépp ñëw lépp lu baax daal te ñu leer baax na te addu bu ñëwee baax na man ci foofu laa recommandation yi ci askan recommandation yi may ñu dem vacciné wu ji te xam ne ñun jël nañ ko parce que loolu lañu yaakaar neew ñu ne day ñëw pour régler problème dañu yaakaar ne vaccin bi bu ñëwee dina lijjanti lu bari bu ñu ko booleeg mesure barrière am nañu yaakaar bu rëy rëy rëy ne vraiment dinañu dimbali ko ba mbas bi jeex fi jërëjëf effet secondaire comme j'ai dit secondaire moom mënut a ñàkk ci secondaire yi efe secondaire moom ah dafa ànd ak garab dafa ànd ak vaccin donc ce qui fait aujourd'hui euh, ñu bañ a jël privé priorité ci secondaire effet secondaire aspirine sax am na effet secondaire paracétamol am na effet secondaire mais l' avantage ñi jël garab médecin jox la ko wala ku la ko mën jox dañ lay suivre donc effet secondaire bu mën a ñëw balaa mu lay fekk gars yi nañ ko ba xam ne voilà li ci waroon euh, euh, indi problème du am problème donc